bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dun yaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maam maryaama jaaratuna kon ñépp jaari jahim tey jaaratullaahi budul ko nag rawdatu maam jaare fi poroxaan kon wóor ya daaxare dun dem jannatullaahi nee leen ko alhamdulillahi alkarimi ndegam tuuba li man baalaxaayi am jaaratullaahi nee leen ko alhamdulillahi alkarim ndegam tuuba li man baalaxaayi am jaaratullaahi xaddis ba nee ku dajeek taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullaahi xaddis ba nee ku dajeek taarix ba topp sëriñ tuuba du dem naari ngir maam jaaratullaahi ñeneentu téeméeri at ak junni mooy lañu wax loola di fanweeri at ngir bamba lillaahi nee leen salaamun bu so jaaratuna yaa doon mariama yow maam jaaratullaahi yaa doon maryaama yow maam jaaratullaahi iisam nu maryaama ruuxullaahi kun laamoon jibriilu ñëw fa yakoonu jaaratullaahi cheikh bamba ne xaadama lam yakuneek lamu am wala yakunu li mumkinin min allahi maa lay nuyooka ziyaaraaka yërëm du fi yow xol yaa ngi ruu yaa ngi sun cër yaa ngi lillahi yaa jar siyaare diraam tey sukk tey joxe hëddiya lillahi ngir maam jaaratullahi nangul nu sun yéene ak sun jëfi nangu gu wér te boole noog bamba fil jannaati bun yaqu bun yoqi bu nu yàqit la bamba defoon saadix bu sax ci ndigal ngir jaaratullahi umu xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara bu soonu selmal jaaratullahi umul xadimi rasulillahi jaddatuna mam jaara bu soonu selmal jaaratullahi dem leen siyaare ji sunu mam jaara xudwatina royteef la fii poroxaan tey jaaratullahi dem leen ziyaare ji sunu maam jaara xudwatina royteef la fii poroxaan tey